Bienvenue sur votre site d'information Tivactu TV, la chaîne. Monsieur le docteur Sakho, en même temps président du comité de réception des dons, je dirais. Euh, monsieur le maire de Tivaouane, Mon frère que j'appelle affectueusement Borom Diaw bu c'est pourquoi. Mesdames et messieurs, qui avaient l'amabilité d'accompagner notre frère, M. Abdoulaye Ndiaye Galbou, M. Abdoulaye Ndiaye Galbou lui-même, ñu ngi lay nuyu monsieur Cheikh Ahmed Tidiane ñu ngi lay nuyu l'honorable député di am mbégte Ablaye ci geste bu rëy bi nga def nag dégg dama doon sëy docteur yàlla weddi ma ñu tuddee ko suñu maam ja borom reetaan ju rafet ja dégg tur bi rek boobu El Hadj Malick yi mooy maire Tivaouane mu woo ma ca France ni ma dafa am hôpital bu bees rek ma xam daal kooku moom sama affaire personnel la ba tax na suñuy lal moo njëkk dugg ci hôpital bi defuma politique xamuma kuy président Macky Sall xawma kenn li ma xam daal mooy Tivaouane comme yow li nga mel rek te yow sax yaa parce que fas boo gis rocc moo a fas yow boo moytuwul dina xoox taxaw ñaañaak ki daam de maa gis lu mel nii samay lal ak samay jéem ak samay ci hôpital bi hôpital bi commencé ma nekk ci àll bi rek doon dóor waar nekk émigré yàlla mi dara tëw booy bëgg bëggal loo xam mhm. ndax des fois nga bëgg dara mu napp la ci mhm. tey ñuy dox di dox di dox ba ñëw doon président conseil d'administration hôpital Mame Abdoulaye yàlla mi dara tëw loolu dama koy wax parce que dafa am solo mhm. àddina da ngay dem ci benn jamono dootoo waxati da ngay takk keroog bi ñuy njëkk a def conseil d'administration mu tombé le 14 septembre di bisu Mame ma ne lii de la muy jur kenn xam président bàyyi ma ma wax li dul ñu génn ci conseil d'administration muy taw ma ne leen lii de la muy jur du kii looloo indi lii suñu premier conseil d'administration man ma jiite ko 14 septembre jour décès ma El Hadj Abdou Aziz Dabakh calculé wuñu ko dafa tombé yow nag je pense que li Pa Modou wax mënoon naa sax bañ a wax dara parce que dafa mel ni lii ñun ñi nga ko defal man de nga ko defal parce que nag hôpital bi gannaaw li ma nekkali léegi ak li may bëgg a def ku ci dugal sa dërëm rek man nga ko defal ndax bu jaree ma jël budget bi ma état bi jox yëpp pour def ko ci dama ko ciy def nga indi fi nag matériel boo xam ne nii moo tax moo xaayeen ku dégg séeréer parce que bërki démb bi ñu jëlee 30 millions injecté ko pour jënd appareil yi benn lañ ci am benn kese lañ ci am yow nga indi ci lu mat fukk ak lu topp non content de ça nga boole ci ay petit matériel yoo xam ne nii li docteur Sakho wax kuy faj te sa blouse setul ngay faj sax yàlla bu ca doxee dem kuy faj te amoo lu lay saytu sa yaram nga gis caméra lan moo nekk ci sa biir yaram yàlla bu sa fit dem ba nga def donc andi woo fi daray como may ñaan nag ci ñoo ñooñu ma tudd léegi muy maam Abdou Aziz Tabax mi ñu tuddee hôpital bi balaa une semaine yàlla na nga gis ci sa bopp loo xam ne nii di nga ni am na lu ma def loo xam ne nii moo a te noonu lay def ndax doom ju set laa te yéene naa la jàmm boo gisee nag ma yéene la jàmm yaa ma ku yéene xale bu yaru ma ci tàngal yey sa Gune Ngaay Gune Ngaay nag ñu ñu xamuñu la mooy Gune Ngaay biscuit yi Gune Ngaay mooy biscuit ma sama place di diisoog man yaru ndax jigéen moom boo yaroo rek mën a ànd ak moom ndax ñun suñuy tale ñun ñëpp ñoo ko suñuy bag-bagi ñun ñëpp ko léegi nag. Uh-huh. nga teg ma sama place ma ma teg ma sama place koo gis nam la def. koo xamul noo koy def. nam la def a tax man daal sama xol sedd na. sama yéene ci yow dama koy denc parce que jarul wax Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si almaktum nee na ne ci xef yi ne ci xol yee tudd uh-huh. te man loolu laa gëm macha allah nga defal ko population Tivaouane yëpp defal ko say nawle defar ko hôpital bu jar a defar parce que du hôpital boo xam ne nii dafa yem ci département bi toujours ma wax ko hôpital la boo xam ne nii day jóge ba Kédougou yaakaar barke maam du yaakaar ni bu fi duggee bu ko fajee day wér bu jógee ba Kédougou ñu ko faj ñu koy faj loolu am na lu ma ci xam donc monsieur le opérateur économique je dirais ñu xaar ba ca kanam ñu waxaat yeneen titres yi koy ñëw incha allah donc ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal xol bu sedd doy na ñaan yàlla li nga bëgg sa yaa ko xam yàlla na la ko yàlla xamante ni moo ñu fi jiitu depuis 9 heures mi ngi fi muy Mouhamadou Rassoul Diagne nga xam ni nii il est membre du conseil d'administration de l'hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh en même temps le premier secrétaire élu du conseil départemental de Tivaouane qui m'accompagne nuit et jour dans ses actions de haute envergure maa ngi nuyu aussi la présidente de la commission santé muy madame Ndeye Diallo moom it ñëw na pour réceptionner don bi en même temps que ñu nga àndal ñëpp di sant képp fi taxaw les communicateurs traditionnels la presse yéen ñëpp a jaaraama